ñoo ngi fi euh, egsi na si jàmm ñoo ngi liggéey bu baax a baax a baax parce que xam nañ bu baax euh, lu ñuy xaar samedi euh, parce que am na ñaari match samedi bi ak euh, mardi prochain contre contre Burkina liggéey bu ñuy def bi yëpp pour essayer vraiment gagner match yi yi di ñëw la ah waaw détermination am nañ ko depuis bu ñu avant ñuy préparer ñëw fii parce que xam nañ lu ñuy lu ñuy xaar parce que coupe du monde bi depuis ay at ñu ngi koy ñu ngi koy xalaat et suñu mag yi dem nañ fa ñoom ñun tamit dañu bëgg a def comme comme ñoom dem fa Eh, ñu ngi ñaan yàlla eh, yaakaar ni at bi mooy suñu suñu at. waaw lépp lu ko war moom dinañ ko dinañ ko si def commencé nañ eh, liggéey bu baax a baax a baax ñëpp ñu ngi concentré bu baax pour match samedi parce que match boo xam ne la du yomb. parce que si kanam am nañ benn équipe Burkina Faso boo xam ne équipe équipe bu baax la. pour pour gagner xam nañ waaw lu ñu war a def dañu war a vraiment liggéey liggéey bu baax mais boobu bu neexee yàlla incha allah waaw samedi moom yaakaar naa ni moom bu ñu defee lu ñu war moom yàlla dinañu may euh, dinañu may lu gën suñu. waaw lu mu la ñu wax chaque jour rek comme ça ñu nekk euh, seen ginnaaw équipe yaakaar naa ne euh, ñun duñu dara dara sans ñoom parce que ñoom ñoo ñu mun a pousse si qualification bi ñu ñu ñaanal ñu leen ñu wax tamit ñu ñaanal ñu nekk seen ginnaaw équipe incha allah rabbi comme ça samedi ñu def lu ñu war yàlla yàlla may ñu dem ñu la baalu ak déjà di leen wax baal ñu ak yàlla ñu yàlla boole baal. ñu fekk ko ay euh, at yu bëri bëri bëri parce que mën naa ne ne tamit amal na leen ak lu toll ni tabaski euh, ñuy joué match bi euh, déjà xam naa ni carrément stade bi ñëpp dinañ ñëw seetaan si parce que fu ñu toll si ñoom la dinañ baalo ak dinañ wax aussi yàlla nañu yàlla may ndam comme ça voilà tabaski bi tabaski bi gën a neex si suñu ñun ñëpp.